ba muflixu ba muflixuuna fa la yenn araf yi nekk ci des mu ngi ci diggante alif laam miim euh, euh, astafurlah mu ci jeexiti amana rasul ba boppi alif laam miim te boo ko di chefir yooyu yëpp mu ngi ci biir allahu moo tax allahu mooy ismu zaat huwal ismu zaat moo tax mu ñëw rek allahu la koy tàmbale allahu nuuru samawaati wal ard allahu alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum hmm? jeex na qul huwa allahu ahad <laughs> gis nga bu ñëwee ci ñun na qul auzu bi rabbi ñoruñ ko moo tax ñun ñoruñu yàlla moo tax mu ne qul auzu bi rabbi wan ko ne ko ñii duñ dara man maay dara qul auzu bi rabbi naasi du ngeen tus may seen borom maliki naasi du ngeen tus may seen buur ilaahi naasi du ngeen dara may seen borom jax na lii rek moo tax rabbi la yàlla boole foofu waaw xul aw rabbi naasi maliki naasi ilaahi naasi mu ne yonent bi ñu ne jarul lu maa wax ñu ne dañ lay liggéey ba sa yaram di sutaate duma indi sax sama ismu zaati dama leen di dugal ci ñoom ci seen biir li mu mérité laa lay fajee xam nga baatu rabbu mooy tarbiya mooy yar buy dal waaw mooy baatu rabbu ki lay tarbiya mën na leen ni tey doo añ ma ne leen demal taxani wala déet loolu yar bu dal la di demal taxani dugal ñetti fan yi xanoo cere ju wow rek ngay lekk yaa bëgg yàlla moo lay tarbiya di nga ko def wala déet mm-hmm. boo ko deful doo am lu nga bëgg mm-hmm. waaye moo lay tarbiya ak ceeb lu mu def mm-hmm. léeg-léeg mu ne la demal béy tool ak ñu béy metti wala déet weer góor bi yëpp indi jox ko wala mu ne la demal nga indi ma tant de million nga dem indi ko jox ko loolu tarbiya la moo tax baatu rabb moo tax gis nga yàlla bi muy indi ci ci fatiha lu mu wax rabbil aalamiina alhamdulillahi rabbil aalamiina foofu rek nit ñi waroon nañu def attention moo tax fatiha garaaw fatiha yëpp tarbiya la fatiha yëpp tarbiya la fatiha yëpp tarbiya la moo tax yàlla indi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil bu ngeen fi dof dof loo it maa yor am ko ni yàlla yoroo sama dara mu ne baax na ndax maa ngi mu yor ay milliards inna al insana la yataxa an raa ustaxna yàlla ni baax na maa ngi nii feebar na ko tàpp mu ne tuberculose wala ñu ne mu euh, ñu koy waxeeti bu benn bal yàlla ci yàlla musal cancer nga dem fajoo yëpp ñu dagg say cër nga dee boole ci rabbi naasi waaw rabbil alamin yor nga milliards yu dul jeex waaye la lay faj ñëw ci sa loxo kim ne ci loxo koo koy tarbiya mooy rabb mu ne la maa tey doo wér dee rek nga jël milliards def ci mu ne dee rek jaat rek nga jël ay milliards def ci pour wér mu ne mukk docteur yi daañu lekk seen wàll sëriñ si lekk seen wàll njabarkat yi lekk seen wàll ci jaat ngay mujj ñu suul la ci suuf rabbil alamina rabbil aalamiin ah nga jub sëriñ ju xutbu boo wax yàlla déglu la yëf ne tàpp ci sa njaboot te mënoo ci dara yàlla ne la maay rabbil aalamiin moo ma neex moo tax Fatiha garaaw ah ah arrahmaani rahiim maliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wala ddaalliin gisoo ci benn allahu basmala bi da koy mugg rek pour ganaar gi wàññeeku basmala ba ca kaw da koy mugg rek pour ganaar gi wàññeeku danaru faatiha wàññeeku moo tax faatiha amul allahu yar bi yarul kuy cippi cippi rek mu cor la ko ak fu mu la koy coree mu la koy coree nag waaw léeg-léeg ngay ngay bijjante ko mu ne lay rahmaani nga baax lool yaru lool mu duut la raxmaan ku la gi sopp la bay jooy ni um faali ku la gi sopp la bay jooy te doo xam sax lu tax muy jooy ah fekk raxmaan la la dugal nga xool mu xool la nga neex ko mu dugal la raxiim booboo gën a garaaw kenn du ñemee teg ci sa loxo sa tibbuu tàng moom la Sëriñ Babacar Si yoroon moo tax lu mu laal mu nooy ku wax ak moom nooy ku ko fekk fa mu nekk nooy loo bëgg ci moom am ko lu mu bëgg ci yàlla am ko wal abur rahim wal abur rahim moo tax maam ibrahima foofu la dugg ibrahim abur rahim moo tax fële la cëri sëñ Babacar si di gën a feeñee àllaaxira arahman arahman xalq jamian waaye arrahim lil muslimina moo tax nag boo dëgëree bopp mu ne la malik yawmi diini boo dëgëree bopp ësle woowle ne ne waaye yow man dama fàlle julli ak woor mu ne la baax na di nga xam ne maay malik yawmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastain des dana ñëw ut ndimbal ci man te fekk c'est trop kon nangu ko bi muy teel mooy iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ndax bés dana ñëw wala su ma yëgoon kon nangul ca teel buñ ko toppee duñ fi jóg moo tax Fatiha amul Allahu waaw moo tax qul huwa Allahu ahad garaaw Allahu samad xoolal ko yàlla taftalante qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu ahad te huwa huwa Allah. qul huwa allahu yaani huwa allahu allahu waaw qul huwa allahu huwa allahu huwa allahu allahu ñu ne xamoon ko yàlla mu ne ahad man kott dong rekk càppaay culi kenn ñaareelu ma ñu ne xamoon loolu ba tey mu ne asamadu saa yu ngeen xëyee di ma diis seeni soxla te moom kenn dégg ko ma diis ko soxla te sama lépp a ngi dox waaw ñu ne ko xamagul loolu ba tey mu ne da ngeen ma utal ngeen lam juruma kenn yoon ci yàlla Isaa jur na ak ndeyam ah <laughs> dinañ yàllaa ko jur mu ne lam yelit juruma kenn wala mu yulat Mariama génn ku am ndey bokkatoo ku am baay bokkatoo mu des ñu bëgg daraja naan maag yàllaay fanaan biig mu ne lam yakun lahu kufuwan ahad associé wu maag kenn day fanaan ak moom <laughs> waaw ñu bëgg daraja ñu naan maag yàllaa fanaan yàlla ni kaay da ngay kàcc waxoo dëgg walam yakun lahu kufuwan ahad man associé wu maag kenn man kese la jeex na ah moo tax faraxeeg naa si nañ ñu ñàkk ko ñaat nit dafa ñaat nit qul mm-hmm. a'uuzu bi rabbil falaqi min charri ma xalaqa la beneen yoon dinañ ci ñëw wa min charri gaasiqin ida waqaba wa min charri nafasaati fi l uqadi wa min charri xaasidin ida xasada kooku biir nit la yàlla dugg ci biir cuqati ko moo tax falaxañ naa si garaaw xolal si rabul falaq yàlla dafa dugg ci biir nit ñu di def max nit ba mu jeex fekk nit a ngi taxaw nit dafa mën a génn falaqi falax mooy lan du jant bi di du jant bi di fenk nit mënu ko ngir loo bañ bañ jant bi tiim nga qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri gaasiqin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad yooyu yëpp intérieurement la ndax yooyu mbiru biir la du mbiru biti wa min sharri nafaasaati fil uqadi wa min sharri xaasidin iza xasad ka wéet yàlla ñaag na ko ki wéttaliku yàlla ñaag na ko ku ne patt te xol ba di bax yàlla dugg na ci biir génne ko falax yi jeex ñu ne yonent bi taxawal bul demagum des na benn ñu ne ko ban mu ne qul a'uuzu bi rabbin naasi mooy bopp bi ba ci dënn bi maliki naasi mooy dënn bi ba ci ndigg li ilaahi naasi mooy ndigg li ba ci tànk li <laughs> kursiwu na. bu dee kursiwu kooku moom yëfu yàlla la kooku ñëwuma ci waaye bii rek laa wax. mooy bopp bi ba ci dënn bi. maliki naasi mooy dënn bi ba ci ndigg li ndax miin baa tax. moo tax Muhammad garaw mm. gis nga bi mel moom xadam dell moom dell. ñaan googu moo tolloog sa ndigg li moo tax yàlla ni maliki boo dëjoo ne buur laa ma fekk la fa nga dëju walla nga yonent boobu buur laa yow doo dara maliki naa mooy ndigg dënn bi ba ci ndigg li ilaahi naa mooy li tax mu ne ilaahi naa mooy ndigg li ba ci tànk yi parce que nit buy dox en général jëmm yàlla la yóbbaale moo tax bañ laajee sayyidatuna Aïcha ni ko ji jikko yonent bi mu ne kaana quraanun yamshi alal ard alxuraan juy dox la ci kaw suuf nit mission yàlla lay dox te nit tànk moo tax yàlla buy tudd ñaare yadayhi wa rijlayhi rek lay ñaag li ci ëpp bal yadaahu gis nga li ci ëpp yàlla loxo ak tànk lay tudd moo tax ilaahi naasi moo demee ci ndigg li ba ci tànk yi yàlla nag min sharril waswaasil xannaas alladi yuwaswisu fi suduri naasi minal jinnati wa naas moo tax ca may axyaali ba ma ko ba ma koy ba ma cee laa biire mu ne qul auzu bi rabbi naasi min sharril waswaasil xannaasi alladi yuwaswisu fi suduri naasi minal jinnati wa naas qul auzu bi maliki naasi min sharril waswaasil xannaasi alladi yuwaswisu fi suduri naasi minal jinnati wa naas li ma qul auzu bi ilaahi naasi min charril waswaasil xannaasi alladi yuwaswisu fi suduuri naasi min al jinnati wan ah ñëw nag ramassé ko qul auzu bi rabbi naas maliki naas ilaahi naas min charril waswaasil xannaasi alladi yuwaswisu fi suduuri naasi min al jinnati wan naas lii may wax ca na Yaxya li ma la ko waxoon ca nii gi nga xam ba wax ma li tax mu ñaalee ko noonu benn bu ne li muy dox bii bëccëg bii guddi bii yor-yor. yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla dolli sutura Thierno Sarr kontaan nañ bu baax sëñ Babacar jërëjëf ñun sa maam rek lañ am waaw sa maam rek lañ am El Hadj Malick lañ am ku El Hadj am nag am nañ la ku El Hadj Malick eh, rek ñun yilif nga ñu waaw du nag awliyaa ulaahi yëpp. maam borom Touba Cheikh na Cheikh Saad Bu maam Limaamu Laay maam Bu Kunta Njaasaan lii mbooleem awliyaa yi la sëñ di wax rek laay àbb mbooleem wali yi naaw laa naaw naa leen bu doy fa yàlla waaye gannaaw gi jaayante nag Cheikhu Tiijaan yi moo tax wali yi kenn ku ne am na cër bu ko yàlla sidd bu moromam amut ndax am ñu toll li yàlla am bari na ñun ko yéene bari nañ kon na kenn ko ne tàllalal sa loxo rek te def effort kenn ku ne ci ñun tàllalal sa loxo rek te def effort balaa moo banku yàlla teg ci dara billaahi wal kitaabi ku ne tàllalal sa loxo te def effort billaahi balaa loxo bi di banku yàlla teg ci dara ndax yàlla soxorul iñaanut lépp la fi nekkal kon yàlla na yàlla dafa sutura sëñ Babacar